asalaamaaleykum mbokki internet people 221 yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen euh, comme niñ koy faral di defee rek toujours à la recherche de l' euh, jot nañ ni ki démb que ay rumeur ñi ngi daw ne benn waay bu def appel ci fi nga xam ne ni mooy chaîne de télévision bu tudd 2A TV def ay révélation ne euh, lii di plage ci tefesu jàmmalaay bi am na ay nit di ñuy yeb ci frigo daal di leen ni sànni ci plage bi Euh, nekke noonu nag ñu ngi nii ñun waa People 221 naka la ñu accès ci plage bi jot nañu am ay intervention ak képp ki nga xam ne nii mi ngi ci plage Yoff jàmmalaay ba Besseyaawo doxantu nañ ko mais information bi fu mu toll nii am nañ sax ñu jot a wax ne euh, benn individu bu tudd Abdoulaye Camara plus connu sous le nom de Baba Camara Baba Kaana nekkoon artiste rappeur activiste euh, ci plage Yoff bi lañ daal di gisee kooram Euh, yooyu nëpp yooyu yëpp nag nekk ay information yi nga xam te ne nii ba pour le moment ni ñuy waxee yow nii mënuñu ko confirmer parce que on a cheminé de la plage de Diamalaye à Besseyao amul kenn koo xam te ne nii signalé na kii lii lii nga xam ne moo di noyaat wala benn individu bu teer si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 tey nag ñu ngi fii ci place Diamalaye place BCEAO ku ne gis na information bi nga xamante ne mu ngi daw euh, démb ba tey ci réseaux sociaux yi mu di benn waay buy wax ni am na ay nit yoo xam ne dañoo jël ay frigo yàpp ci ay nit yoo xamante ni dañoo dee ñëw sànni leen ci plage bi ah ci loolu nag people 221 li may wax rek lu nekk rek ak na mu koy traité ci lañ déplacé wu nag ñëw ba Yoff Diamalaye fas yéene Cheikh ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci plage bi frère dañ lay bàyyi nga nuyoo. salaamaaleykum mbooloo mi salaamaaleykum Sénégal. baal ma yëkkati micro bi. ñu ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santaam. Mhm. waaw di jiital nuyoo bi kilifa diine yi waaw. d' ñu waale suñu kilifa Tayru Sarr. Mhm. waaw. Mhm. ñi nga xamante ne ñoo nekk si place bi fii yëpp. ñoom ñoo ñu coiffé. d' accord fii yaakaar naa ne yoof ñun ñàkk ñu fayda ba nit di ñu indil naka su dul noonu di ko def fii si dëkk bi. d' accord tur bi naka la. Ali BCAO. lan nga ci bés lan nga ci plage bi. man responsable laa si plage bi. maître nageur laa fi. lépp lañ fi daal. maanaam fi lañ fi lañ màggee. yéen yéen a yor plage bi ci wàllu sécurité wàllu kaaraange plage bi. waaw bi d' accord bi nga dégg information bi ñu wax ni dañu jël ay nit yab leen ci frigo ñëw sànni leen ci plage bi. waaw loolu yéen bi ngeen ñëwee fii sax laa ko yëg bi ngeen ñëwee fii leen yëg loolu moo tax ñu war see wax. ne loolu ñun gisuñu ko fi te buñ ko fi gisoon ñi ko fi def du du demee noonu. te buñ ko bu fekkoon dafa am yéen boo ñëwee da ngeen fekk noyade yi fi ñu bàyyi leen fi quoi parce que nit mënoo def seen njombe ba pare ñëw def ko fi loolu ñun gisuñu ko fi fu dëgg yàlla gisuñu ko fi te buñ ko fi gisoon dañ gis nañ ko fi ñun amuñu fun féete amuñu fun far ñun géej lañ gëm géej rek moo ñu ñor leneen ñoruñu du président du kanee naa keneen ñun kenn ñoruñu. bàyyi laay Rasoul moo ñu ñor ak géej euh, bi loolu xewee est-ce que boobu ba tey nemmeeku woo leen tamit ci plage bi ay nit yoo xamante ni tamit ñu ngi ciy teer si extra. fii kenn teeru fi fii kenn teeru fi noyade yi fi am ay raw ñoo fi am te ñun ñoo leen génne mu doon kenn ku jigéen moo fi rawoon ñu sauvé ko keneen rawaatu fi. loolu kañ la semaine maanaam ndax mbir mën na xewee diggante Yoff jàmmalaay ak fii nii Besseyaawo te yéen ñi nekk fii ci plage bi du ngeen ko yëg. non loolu mënul na fii lu fi xew ñun dañ koy yëg lu fi xew lu dañ koy yëg ba Cambérène lu fi xew ñu yëg ko. d'accord parce que ci ay information dañoo jot ne démb lañ lañ dugal fii nii ay nit ndax ndax ndax nit comme yéen ci seen expérience ndax nit bu labee ci géej fii ak démb ak tey ñaata ñaata temps la mën a def pour war a mën a génnaat. nit bu labee fee démba tey démba mën nañ ko xaar fee quatre jours mën nañ ko xaar fee une semaine semaine pour mu génn mais boo fekkee danga sànni nit fii boo koy sànni muy ñëwaat sa kaw léegi nii koo rey sànni ka day ñëwaat teer léegi loolu mënul ne mënoo sànni nit mu dem feneen ba nga koy sànni mu ñëwaat teer say tànk loolu mënul ne moo tax ñoom yi ñuy wax di influencer nit ñi bëgg a yàq dëkk bi loolu rafetul quoi dëkk bi suñu dëkk la bu yàqoo ñëpp la yàqul fii jàmm rek moo fi am réewam jàmm la quoi nan bàyyi influence yi ñuy def surtout ñi nekk en Europe nekk si TikTok bi nekk fépp di wax nan bàyyi loolu ni ñuy def yooyu ñu def baaxul am réew jàmm moo fi am fii jàmm moo fi war a sax lép lu ñuy lijjanti kilifa yi lijjanti ko jàmm am si réew mi parce que jàmm si la lép xaj quoi. tey situation dëkk bi bu ñu demee bay dégg yenn yenn information yi naan ay nit ñu ngi leen di rey di leen sànni ay nit ñu ngi leen di tuer par balle réelle yooyu noonu en nan la lay def. non loolu métti na ñëpp parce que tamit xam bu nee diw rey na nit diw xaaj na nit ñoo loolu lu nit ñi teg seen bët la quoi isam la man li ma teg sama bët mooy policier bi nga xamante ne dafa daanu yéeki birig dóor ko ko man loolu teg naa sama bët gis naa ko quoi mais gisuma beneen rey boo xamante ne nii non gis naa ko man fu dëgg yàlla te xaw ma dee na xaw ma deewul mais loolu dafa ëpp quoi dañ ko ñaawlu trop ñaawlu nañ ko torop buñ sañoon suñu frères yi yëpp teg seen xeer yeex ñuy teg seen lii ñu xam kilifa yi waxtaan jàmm am si réew mi parce que jàmm si la lépp xaj. parce jàmm moo ñu ñor. da xool fii place bi démb dimanche na mais y' a personne kenn génnul kon ñun liggéeyuñu kenn liggéeyul kon loolu baaxul si dëkk bi ñuy waxante dëgg ndëgg fii kenn nekku fi nit ñëwu fi sànni fi ay nit yu dee loolu amul ki nga wax noonu li mu wax amul. te bu ñëwee fii nañ naka li nga amul te wóor na ma nekkul si dëkk bi sax wóor na mu ngay Europe dañuy nekk Europe di bi seen yi nga xamante ne ñu ngi fii seen baay di sonna si ñoom seen yaay di sonna si ñoom ngeen gën leen teg coono te yéen yéen a ngi seen jàmm nekk seen Europe dunda leen seen Europe bàyyi leen suñu senegal aw tàddu war mbaam war gëlëm d'accord tey boo amoon message booy lancé jeunesse bi lan lay doon jeunesse bi ñu xool si ñun ëpp ñu ñu doole ëpp ñu ëpp ñu ñu jom gënuñ ñoo dëkk si dëkk bi te ñun ñu ngi nii toog lem ba mu ron teg suñu ataaya di ka naan ku nekk na dem si kër ndeyam ak baayam mu teg ataayam naan ka ñii di yàq dëkk bi dëkkuñu fi te bu tabaski ji jotee nii nañ tëj di frontière kenn du fi duggaat kon Dakar du yàqu ñii di yàq dëkk bi dëkkuñu fi lébu yi ñoo dëkk fii te yii duñ ko def ñun ay suuf moo ñuy tax a xeex waaw di wax Macky Sall mu delloo ñu suñuy suuf. Mhm. waaw loolu lañ am si lu ñuy wax loolu moo ñu ñor. jërëjëf euh, comme ni ngeen ko waxee ba tey rek ñu ngi nii ak ñenn ñi nga xamante ni ay responsable lañu ay membre lañ ci place bi euh, frère ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar. baal ma nga yëkkati micro bi. ñu ngi lay ziar. d'accord euh, lan nga ci plage bi. man plage bi plagiste la en même temps surveillant de d'accord ñu jot benn information boo xam ne dañ ne dafa am ay nit yoo xamante ni dañu jël ay nit yu dee ñu yeb leen ci frigo ñëw sànni leen ci plage bi euh, ñun nag ñu ni bala ñoo wax dara nañ déplacé ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci plage bi. waaw loolu moom yéen ñi fi ñëw nii yéen ñu ko yëgal te ñun daanaka presque plage bi daanaka 24 heures sur 24 presque ñu ngi presque ñu ngi fi waaw. Mhm. kon nag loolu moom bu amee moom du luñ dégg du luñ gis. dégguñu ko ku koy ku fiy fréquenté wax ko dégguñu koy liggéey si place bi wax ko aussi. Mm-hmm. kon boo leen ñëwee indil ñu xibaar boobu si yéen lañ ko yéegi mm-hmm. waaw te loolu xam naa ne moom nit ku ko doon def tamit boo ñëwee di nga jàkkaarloo ñu kii que ce soit kon loolu man pour man fausse information la rek waaw mm-hmm. Euh, tey ci wàllu ci wàllu seen xam-xam comme yéen yéen a nekk fii nii. Mhm. est-ce que tey euh, nit mën nga ko jël nga sànni ko ci plage deux jours ba trois jours du teer ak yàpp ko ci ay frigo aussi. non géej gi dafa am ay vagues géej gi calmé wul tey jii boo yoroon boo yoroon maanaam benn affaire nii nga bëgg a dugg moom si géej gi day metti sax nga dugg nga romb vagues yi. te boo ko bàyyee si vague yi automatiquement day teeraat yow moom boo boo teeree balaa ngay yëg si tal euh, balaa ngay dox 100 mètres moom tamit mu teer mhm. kon loolu tamit ñun jaaxal nañu tamit que ne dañ jël ay nit sànni ko fii mhm. parce que bu fekkoon ne dañuy sànni nit mën nañ wax ne place boo xamante ne ni kenn fréquenté wu ko mais place boo xamante ne ñi ñu ngi koy fréquenté ñu jël di fi sànni nit ah, loolu moom xaw ma fu mu jógee mhm. mais kii ki génn moom wax na lu ñaaw waaw te loolu ku ko dégg bu fekkee ne xam nga géej xam nii géej di circulé di nga xam ne loolu du dëgg kon doy na waat tamit. Mm-hmm. waaw d'accord mais ci seen wàllu sécurité est-ce que bi nga yéegee information bi li ko dalee fii ba Cambérène ba Ngor euh, yéen ñi nga xam ne yéen ay membre plage bi yéen ngi doon def ay waxtaan pour jéem a trouver dara ci plage bi. Euh, ma ne loolu noonu information boobu ni may waxee na yow nii si laa ko yëgee te dégguma ko si place bi moo tax ma ne la loolu bu amee jaaxal nañu. ba léegi nii yow mi boo paree nga dox ci place bi ndax di nga ko dégg ku ko waxtaane walla ku ko gis ko mën ne di nga ko di ko trouver kon tamit loolu pour man fausse information la rek. d'accord léegi nit bu musaana bu musaana lab ci place bi genre mu labee Ngor walla Cambérène est-ce que yéen ñi nga xamante ne yéen nekk fii membre yi nekk foofu dinañ leen woo ni leen ah am na ko lab bàyyi leen xel walla bàyyi leen xel. Euh, souvent. nit bu labee fii ba Malika information bi gars yi dañ koy am. Mhm. donte ne ay plage plage ku fi labe moom information bi dañ koy da nga koy xam. mais mais ba tey jotagoo leen information kenn woowagu leen alerté leen ci dara. kenn kenn déggu ko si dara dégguloo ma ne la yow yow mii di journaliste yaa ma ko yëgal yow mii di journaliste nii te déggaatuma ko si keneen. d' accord jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a baax. waaw jaajëf merci.